avec Cheikh Diop yëglekaay yi li ñu xëyee tey jëlee ci àllarba gi dañ ci ànd ak Cheikh Diop Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar wér sama naata maa ngi lay fay nuyu sama naataango yow bokkal plateau bi nuyu mbokk téléspectateurs yu télévision Futurs Médias. Mm, ñu dooree ko ak l' lañu koy ah, doole mu doole li nga xam ni itam moom moo soxal wallu contrôle ci ah, fiche yu ñeel wàllu ah, parrainage bi jàppal ne liste bu Ascosen ak itam bu Decroix dañ ko rek mm, daal di recalé 48 heures yu de sursis la daal di dippee mu wàllu bu maître Abdoulaye Wade les serviteurs euh, bu Pape Djibril Fall ak itam bunt bi bu El Hadji Ibrahima euh, Mbow page 5 bu euh, l'observateur leneen itam loo xamante ni daal na ci addu mu soxal taxawaayu ñenn ci ñoo xamante ni ñoom ñoo séq ko politique bi ci li nga xam ne moom moo di liste yi lu ni mel itam jur na yenn ci ay njàqare wala bokk ñenn ci ñoo xamante ni itam ci la jamono dañoo mer l'observateur naata séq ab waxtaan ak nga xam ne moom moo di Ahmed Khalifa Niass moom moom xutba ci li nga xam ne moom moo di élection législative yi nga xam ne na euh, namoon nañ koo amal lépp lu ñeel wàllu Dubaay bi nga xam ne boobaak léegi ñu ngi koy addu ci li nga xam ne nag moom moo di réseaux sociaux yi daal na ci amal euh, taxaw bu yaa digganteem ak nga xam ne moom moo di euh, président Macky Sall mi mu turé ci lii la élection ak moom ci boppam wàllu yoon itam lépp lu soxal sabotage bi nga xam ne moom lañ amal boobaak léegi wala boog démb bëri na lool ci lu ñu ko addu ci li nga xam ne nag moom moo di journaux yi maanaam Samba yi nga xam ne ñoom ñoo dagg câble ci li nga xam ne nag moom moo di train express régional mu mel ni itam euh, procureur daal na ci euh, dugal yoxoom ci la jamono itam euh, ñu ngi wëyal bu baax a baax lépp lu soxal enquête bi ngir rek ñu jàpp ñu ni mel ñoom ñooñu itam mën nañ leen a topp ci lépp lu ñu neel def katu ñaawteef maanaam terrorisme jébbal itam ci beneen ab gox mu di Keccento Keñeto Daaxa foofee nag lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay doomi aadama yoo xamante ni ci la lépp lu euh, soxal euh, métitu biir li ko waral bokk na ci euh, cere woo xamante ni nag moom la ñuy lekk lu ni mel moom rek moom moo leen daal di yóbbu fa nga xam ne moom moo di ca urgence enquête di yi tam ci lépp lu soxal maanaam investiture yi nag ci li ñuy jamono am ni ñoo xamante ni ci dañoo mer naata cere bi ñuy wax mu ñu def ko Euh, mu gën a gaaw le quotidien dikkaat ci li nga xam ne moom moo di euh, parrainage yi secours euh, second tour lu toll ci 48 heures sànq maa ngi koy wax ngi rek ñu daal di mottali yenn ci yoo xamante ni daal dinañ koy manqué daal dinañ xëy fësal itam yenn ci nataalu ci ñoo xamante ni ñoom la ñu tudd ci wàll wi jàppal ne Gambie ak itam Mauritanie ci la jamono ñoom ñoo nekk buntu woo xamante ni ñenn ci ay doomi aadama ñu nga fay dem ngir amal li nga xam ne moom moo di mbëkk mi le soleil dikkaat ba tey ci li nga xam ne Euh, moom moo di euh, koppar yi euh, nguur bu Sénégal war a séddale ci ñenn ci ay njaboot yoo xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ni ki démb itam amal nañ bu baax a baax lu ni mel wàllu wér-gu-yaram itam gouvernement bu Sénégal ak itam syndicat ñi nga xam ne ñoom ñoo ëmb wàll wi ci la jamono itam daal nañuy xaatim aw déggoo mu soxal li nga xam ne moom moo di indemnité de logement yi nga xam ne daal nañ koy fixé ci lu li nga xam ne nag moom moo di ñaar fukki junni naata libération soxal rapport atum 2019 2020 2021 bu of nag ñenn ci ñoo xamante ni daal nañ leen di tudd euh, ci li nga xam ne nag moom moo di lu balu euh, koppar wala bokk alaluk euh, bokk moomeel ak alal boo xamante ni mbooloo moom moo ko bokk Momar Talla Gadiaga nag itam moom ñu koy joxoñ baaraamu tuuma ceew scandale naka noonu itam ñu daal di koy rek condamné lu toll ci juróom benni weeru kaso yoo xamante ni da koy tëdd lu ni mel la daal di euh, xëy euh, fësal tribune itam dikkaat ci ki nga xam ne moom moo di euh, Bougane Gueye Dany mi visé jëmale ci li nga xam ne nag moom moo di victoire dëgmal opposition bu Sénégal lépp lu soxal itam wàllu suppléant sur la liste départementale moom ma Diop Diop itam daal dinay rek wan ginnaaw li nga xam ne moom moo di yeewi askan wi lépp lu soxal leneen itam mu ñeel Walf Quotidien dikkaat ba tey ci ñi mel ni ñuy euh, déewante mu di discours euh, jëmale ci li nga xam ne nag moom moo di euh, ndam li jàppal ne itam ñile nga xam ne ci wàllu tàggat yaram xëy nañ fësal seen nataal ci la jamono lépp lu soxal nag wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo leen bëgg indi ci seen ay club ñu ngi joxi jéego ku ci mel ni Sadio maane diggante Bayern ak itam Barça Kalidou Koulibaly daal di rek aw lancé ci li nga xam ne moom moo di PSG ak yeneen yu ni xeetoo daañu ko gën a faram-fàcce bu ñu ñaareelu euh, pàcc wi les échos itam dikkaat ba tey ci euh, lépp lu euh, soxal maire yi nga xam ne ñenn ci ñoo xamante ni ñoo séq langu politique bi amal nañu ko ci yile jamono ndax itam taxawaay wala bokk fa nga xam ne fa lañu leen teg mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di list yi moom président Macky Sall itam bëgg indi saafara ci li nga xam ne moom moo di ñenn ci ak njaboot lépp lu ñeel itam législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ki nga xam ne itam salangeur la maanaam lépp lu soxal wàllu euh, défi kenn koo xamante ni itam bëgg naa fayu ak itam góor gilee moom président euh, de la république ba woon Abdoulaye Wade ñoom ñooñee nag ñoom ñoo bëgg euh, taxaw fa nga xam ne moom moo di ca pencum ndaw réew ma lépp lu soxal wàllu ndool ak yeneen yu ni xeetoo jàppal ne réew bu Sénégal itam daal nay am aw bés ci lu toll ci 5 pour cent mu soxal li nga xam ne moom moo di taux boobee bés bi le jour di kaat ba tey ci ñenn ci ñoo xamante nii nag jamono nañ ne foofee la ñuy yëg seen bopp bu baax a baax xalif général kul murit moom Serigne Mountakha Bachir ñu ngi koy xaar ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai fi nga xam ne nag moom moo euh, soxal wàllu ndakaaru jamono yi nag ki nga xam ne moom moo di euh, jëwriñ bu euh, file di ki nga xam ne moom moo di Mbackiou Faye jamono yi itam àdduna bu baax a baax ci lu soxal wàllu tertu gi ak itam dal di ganale xalif général kul murit vox populi di kaat ba tey yeewi askan wi ak itam wàllu liste yi nga xam ne itam jur na euh, lépp lu ñeel wàllu euh, frustration euh, naata ñu àddu ci beneen mu di source a daal di dikkaat ba tey ci ñenn ci ñoo xamante ni mer nañ ba rek daal di dumóoyu yenn ci yoo xamante ni seen i parti la wala boog taxawaay bu ñu amoon ci li nga xam ne moom moo di langue politique bi témoin dikkaat ba tey ci lu soxal wall wi mu ñeel nag législative yi la bombe des list électorales la rek daal di duppee lu ni mel xëy fësal photo ki nga xam ne moom moo di mu turé maître Abdoulaye Wade ba ci sax ki nga xam ne moom moo di euh, Ousmane Sonko mu mel ni itam euh, tey jilee yemook euh, fukki fan ak benn ci weeru mai atum 1981 fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2002 jàppal na ñeen fukki at ak benn ginnaaw bi itam ñuy rek màggal génnuk àddina ki nga xam ne moom moo di Bob Marley lépp lu ñeel itam wàllu escroquerie maanaam juuj njaaj ak yeneen yu ni xeetoo voyagiste bi lee di Mansour Dia daal di clamé ca yoon jëmale ci ci xaritam bu euh, consul bu euh, Belgique euh, fii ci Ndakaaru ñu àddu ci beneen mu di Sud Quotidien dikkaat ba tey ci lépp lu soxal wàllu contrôle bu parrainage bi ca au ministère de l'intérieur l'épreuve de tous les dangers la rek daal di xëy fësal ñu àddu ci leneen mu di record dikkaat ba tey ci Premier League buteur contre Aston Villa moom Sadio Mané itam di gën a dëggal li nga xam ne moom moo di xarañteefam naka noonu itam daal di amal aw pression ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, waa City yi ndax itam match bi nga xam ne moom la ñu nam amal faaw rek ñu euh, gagné coupe du Sénégal sixième euh, seizième de finale HLM RS Saloum défi Casa ak itam TFC ñu dikkaat ba tey ci ñi leen nga xam ne nag dañoo am jafe ci wàllu dégg-dégg di Sénégal yi xam nga ne doomu Allemagne yi ñoom ñoo leen daal di dóor stade dikkaat ba tey ak nga xam ne moom moo di Sadio Mané match wi nga xam ne daal na koy amal démb ndaka noonu itam daal nay addu ci lépp lu ñeel équipe am bëgg-bëgg bi nga xam ne dal na ko ci am aw laaj itam daal di samp ci li nga xam ne moom moo di ballon d'or bi moom Sadio Mané la mu xam le mu di euh, du ci wax lenn ci le euh, jamono itam ñu ràññee ko lool moom Bamba Dieng ci but yi nga xam ne euh, da koy dugal naata jàppal ne but bu mu dugal ci la jamono dina doon loo xamante ni dañu koy waxtaanee sunu làmb la ñu koy jeexalee ak ki nga xam ne moom moo di Jules Baldé mi addu ci combat diggante rakam ak itam ki nga xam ne euh, moom moo di euh, Modou Lo li mu xam le mu di xaaratuñu ko benn yoon lu ni mel euh, bokk na ci li nga xam ne fast track bi ñu mhm. amal ci li gën fës ci xët njëkk yi kaay ñàkkul na ñaareelu pàcc wi daañu faram fàcce yeneen yi ma indi la beneen journal mm, benn journal merci beaucoup Chérif nga indil bul sori indil Sud bul sori Cheikh indil ñu Quotidien li mu xëyee tey tey bëri na ñu ci xëy tey jile Chérif. muy mbirum euh, parrainage yi euh, ah, voilà soriwul euh, soriwul daanaka defe naa bu ma juumul voilà mi ngi nii c'est voilà. Sud Quotidien l'épreuve de tous les dangers ci wàllum parrainage yi euh, Chérif bu ñu koy méngalee ak examen sax dafa mel dafa am ñoo xam ne dañoo jàll d'office ñu ñu yabal second tour ak ñi nga xamante moom daanaka dañ leen a mais lii lii yëpp dafay wane caractère peut-être complexe ak délicat bu système parrainage bi euh, ni ko nit ñi doon yaakaaree du noonu daanaka du yomb xam moom nañ ko parce que mbirum parrainage xamante ni lu sérieux la laaj sacrifice yu metti maanaam ñi koy def sax boo xoolee danaan la appareil la laaj moo tax bu fekkante ni yoon nga xëy na coalition bu mag mën nga ci mucc boo xoolee la preuve gis nga coalition bi nga xamante ne mooy coalition Aar Sénégal parce que ñoom lañ njëkk a valider seen ay parrainage mooy bi Thierno Alassane Sall jiite ñoom Thierno Bocoum nekk ci ak docteur Abdourahmane Diouf on a vu également bokk liggéey mooy ñoom euh, Pape Diop bi nga xamante tey ci ngoon sax je pense war def conférence de presse moom ak Aliou Sow min dalaloon la semaine passée parce que nekk di contrôler parce na kenn ñëw parenaat beneen wala ci biir sax même bi nga gis fi nit koo xamante ñëw na ñaari yoon ne day pare diw loolu mooy li nga xamante mooy doublon interne yi euh, tamit euh, gis na ni oh, tentative de rejet la am na yeneen yoo xam tamit euh, dinañ ci ñëwaat benn bokk yaakaar yeewi askan wi ak boo xoolee fii presque euh, grande coalition yi jàll nañ à part Sénégal bi nga xamante ni xëy na moo fi surprise nekkul parti boo xamante ni xamee leen ñu nekk parti bu mag maintenant ñi rakale nag am na ci ñoo xamante ni wax na leen ñu dem wutiwaat parce que am nañ 48 heures voilà serviteurs yi ci lañ bokk wàllu si lan si lan bokk Mamadou Diop Decroix également nga xamante ni moo jiite woon ànd ànd jëfal Sénégal ak coalition bunt bi ba ci ñoom Momar moom dañ Momar Ndaw également dañ leen rëkkale ñoom Serigne Mboup également seen coalition bi la même chose ñi nga xamante ni tamit leen ñu war na dem ci parti démocratique sénégalais donc ñoom boo xoolee déposé nañ 55 mais am na ay doublons externes yoo xamante presque c'est plus de donc am na ci 19 euh, yoo xam 1000 yoo

les règles parce que am na ci ñoo xamante xëy na euh, je que c'est pas le pouvoir qui est là parce que ku ci nekk am nga mandataire la société civile également mi fa di arbitrer ñëpp ñëpp di ko teewee muy loo xamante ni am na ci wàllu transparence gis nañ ne nag bon coow li bëri trop ci yéen ñi nga xamante ni quand même ci affaire parrainage bi di di yuuxu parce que am na ñoo xam tam moo leen gënal ñu rejeté leen ñu naan way su demoon ak sauver au au cas où on rejetterait par exemple li su PDS mën na am conséquence ci waa yeewi askan bi nga xam ne wàllu la mais yeewi parce que am na foo xam ne dañ fa. am foo xamante ne ñoom yeewi nekkuñu fa te wàllu moo fa nekk. PDS lay wax mais ma ne wàllu plus précisément. waaw waaw waaw mais xam nga PDS moom daanaka moom mooy tête de pont mooy tête de pont wàllu donc ils ont 48 heures en tout cas pour dem compléter ji li nga xamante ni moom mooy li si su ko deful kon coow li dina ci bëriwaat mais du tale nit ñi dem ci li nga xamante ni mooy élection yi mhm. parce que àndoon nañ ci li nga xamante ni mooy règle euh, du jeu administration électorale aussi il faut leur tirer chapeau parce que ñi ngi ciy def liggéey bu am solo et puis boo xoolee sax même même l'opposition bi loolu les gens oublient ils ont été très indulgents avec certains partis de l'opposition surtout muy wàllu ak Yewwi parce que boo xoolee wàllu ak Yewwi 24 heures après lañ mujj déposé définitivement maanaam bi ne clôture yi dimanche ci guddi la ñoom doon na ba ci guddi ñu déposé su doon ci pouvoir bi day di dégg ñu ne way ñu ngi leen defal traitement de faveur te kenn déggu locale fii ci Sénégal déggu fi benn coow donc na nit ñi dem ci élection ci jàmm ñi nga xamante ni rejeté leen motivé nañ moti kii bi ñu am nañ droit dem saisir la justice mhm. su leen joxee dëgg ci ay recours ñu dem su leen joxul dëgg nag ñu xool leneen moo gën coow li mhm. waaw xam comme fast track la ñu wax dama bëggoon Chérif. de xam nga dañuy faral di wax <laughs> da nga bëggoon rek wax. Hmm. xam nga dañuy faral di wax naan euh, élection dafa laaj expérience mais gis nañu ay coalition yoo xam ne amuñu expérience ci élection mais pourtant def nañ liggéey bu am solo ak ñoo xamante ne yàgg nañoo nekk ci élection xam nañ système parrainage yu nu muy doxee. bokkoon nañ ci élection yu weesu te pourtant ñoom rek kii nañ bokkoon ci ñam boo comme gëm sa bopp ak ña fa nekk ci ay kàngam que ak expérience électorale bi ñu am ñu ñu ñu reproduire les mêmes erreurs xam naa moo tax ñu dóor ci taabal ji ñu ñoom dinañ dem def li leen yoon may mais li Chérif wax rek les règles du jeu sont préétablies dañ ne nii lay demee ñun ñii nga xam ne ñu ñooy dem élection ñu d'accord ci loolu mhm. alors bi ñu demee aussi direction générale des des des élections def liggéeyam ku ci nekk la nga xam ne moom moo tax ñu motiver nañ ko wax nañ la ko à toi de voir maintenant ba xam grief yooyu ñu lay porte d' accord nga ci wala d' accord ci. Mm. boo ci d' accord nga dem ci yoon. Mm. mais de les manières ñi nga xam ne 48 heures lañ leen jox ñoom xam nañu lu ñu war a def pour mottali. ñi nga xam ne recalé recalé nañ leen am nañu yoon bu ñu war a def muy la voie juridique ñu dem foofu. Mm. après maintenant ñu dem élection ku ñu ku ñu fal nga xam ni yow lañ fal. merci. ñu doon wax je pense que nit yi exemple en en 2019 la présidentielle euh, ci ci wàllu parrainage yi euh, je trouve que c'est aussi un quoi qu'on puisse filtre bu baax la euh, pour euh, préliminaire la en plus pour les les, les ak mm -hmm. pour déjà ñu natt seen bopp ci ci ci jeu électoral bi mm -hmm. et puis yi waxee pense que fu mu nekk nii Euh, la euh, coup d'envoi bi euh, ci ci scrutin bi ci walu boppam ci moom la ñu war a gëstu et puis ñi nga xamante ne manqué leen ay ay parrainage ñu lijjanti ko ci ni mu waree. Mhm. et puis bu ñu yegsee ci ci jeu électoral bi qu'il n'y ait pas de contestation sachant que comme ni ko Chérif waxee léegi le fichier électoral c'est très très difficile de frauder là-dessus. Mhm. merci beaucoup euh, Marcel Farba Maroun léegi dañuy jàll un jour au Sénégal un jour dans le monde tey jile euh, mais mai euh, dañuy fàttaliku ci atum 1981 génn ba àdduna Robert Nesta Marley euh, waaye nag tey jile dañuy wax benn histoire bu particulière ci dund moom moom di icône bu reggae di daanaka mbëggeel bi doxoon digganteem ak Pascaline Bongo bu ngeen koy dégg nag doomu Omar Bongo la loolu la ñuy fàttaliku ak leneen ñu dellu si waxtaan ci ànd ceeg ki ne Dem fukki fan ak benn ci weeru mai atub 1998 atte ba daanu euh, tukkee ci cour de sûreté bu nguuru Sénégal maître Abdoulaye Wade ñu teg ci ndoddam atu kaso bu dul tëdd kii di Boubacar Sall moom ñaari atu kaso lañu ko tëj ràpp Ousmane Alioune Ngom Abdoulaye ak Joseph Ndong ñooñee dañu leen bàyyi woon ñuy fàttaliku ndaje mi amoon euh, ca centre international Abdou Diouf bu Diamniadio fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2018 euh, te mbootaay réewi Afrique yi amaloon ko loole soxaloon ay waxtaan diggante ay doomi Libi solo si nu ñuy fexe rek ba réewum Libi génn ci jafe-jafe yamu ne muy fitna ga tàmbali woon keroog ba Muammar el-Kadhafi daanoo ci atum 2011 gannaaw ñeent fukki at ak ñaar yu mu nekkoon ca nguur ga Oumar Blondin Diop mi ngi faatu ci kaso buñu ko dencoon ca gore fukki fan ak benn ci weeru mai atum 1973 moom moomee di Oumar Blondin Diop kenn du ko naatable ci taxawaay bu mu amoon ci mouvement étudiant fii ci Sénégal bis ni tey la dëddu woon àdduna Robert Nesta Marley ñu gën ko xam ci Bob Marley fukki fan ak benn ci weeru mai atub 1981 mi ngi juddu juróom-benn fan ci weeru février atub 1945 ca Jamaïque fato fa ñu naan Miami nekk ca Amérique ab cancer la ñu ne moo ko faat auteur compositeur interprète waykat bu kenn dul natable moom Bob Marley ñi ngi doon wax sax ni dafa doon ngoroyoo ak soxna suñu naan Pascaline Bongo di doomu Umar Bongo taskatu xabaar boobu di Anne Sophie moo ko fësaloon jaarale ko ci ab téere bu mu duppee Bob Marley ak doomu dictateur ba Marcel Maroun di delsiwaat ci taarix histoire mbëggeel bi doxoon diggante Bob Marley ak Pascaline Bongo jot nañ ko nëbb ci diiru ñeenti fukki at mu di diggante bu tàmbali ñaari at balaa Bob Marley daal di génn àdduna kii di Anne Sophie Diane nekk taskatu xibaar française dal di bind téere tuddee ko Bob Marley et la fi du dictateur di ñu gën nettali ni histoire boobu tàmbalee. C'est une histoire d'amour qui est restée cachée pendant 40 ans. ci atum 1979 ca Los Angeles Bob Marley dafa doon def benn tournée ci jamono yooyu ku ñuy wax Pascaline Bongo. di doomu président Oumar Bongo du mu ngi amoon ñaar fukki at ak juróom-ñett nekkoon étudiante ca université ba li mu doonoon doomi président bi mayoon na ko mu mënoon dugg ci biir coulisses yi pour gis artist yi ba mu dajeeg Bob Marley Bob Marley daal di ne ko yaa ñaaw li waraloon nag mu wax ko loolu du lenn lu dul karawam bi mu jëloon afro ko liisal ko te daanaka ñoom rasta yi ci seen culture seen diine jooju mayu leen woon ñuy afro seen bopp yi di ko liisal ndaxte dañu bëggoon lépp di naturel karaw tamit dafa nekkoon loo xamante ni lu ñu fonkoon la. Bob nekkoon tamit ku bëggoon lool Afrique digganteem ak Pascaline nekkoon sax li taxoon mu njëkk ñëw ci biir continent. diggante boobu nag mujjee doon diggante xaritoo ba mbëggeel sax mujj fa tàbbi. Pascaline Bongo jot fee nekk ministre des affaires étrangères ci réewu Gabon ba Omar Bongo nekkee woon président ak tamit haute représentante njiitu réewu Gabon diggante 2016 ak 2019 ba Ali Bongo doone njiitu réewu Gabon. merci beaucoup Fatou Kiné dem mu mel ni am na ñu tàmbalee daanu leer alaaji Malick <laughs> histoire bi ñu raconté tey jile am na ñu bëri ñoo xamante ni sax umpule woon nañ ko ba dernièrement jusqu'à la parution du livre euh, de la dame Anne-Sophie Jeanne nekk ab journaliste mi génne ko waxtaan ci diggante Bob Marley ak euh, Pascaline Bongo moom nga xam ne il euh, est toujours mi ngi dund ba léegi elle a 66 ans ñu bari sax jàpp ni que c'était la dernière grande histoire d'amour de Bob ah Marley c'était c'était c'était la grande et dernière histoire euh, d'amour de, de de de Robert Nesta la xam ne vraiment euh, ñoom ñaar euh, ñi ngi daje à Los Angeles en 1979. Mm. si benn salle de gym lañ daje mais c'est comme si y avait euh, benn flamme bu nga xam ne dafa jóge ci. ci une alchimie voilà benn coup benn affaire mm. bu grave bu nga xam ne bi bopp mar jàkk Pascaline. dafa am lu mu yëg ci yaramam yaramam daw Pascaline aussi am na lu mu yëg ci bopp sama gars yi bàyyi leen ba mu raconté. dafa mel ni ab Chérif na ci. xol day gisee xol bi dafa gaawoon. boobu boobu mi ngi am fanweeri at ak ñeent ah Pascaline mi ngi am. 23 ans ans nekk également ku nga xam ne. Euh, doomu doomu doomu Omar Bongo la mais Omar da ko bëggoon le président Bongo. parce que il en avait 54 mu nekk taawam. mais moom da ko bëggoon préféré ko mu def ay études mhm. supérieures à l'ENA def ko également chef de cabinet nekkoon na ministre des affaires étrangères alors ñoom ñaar bi ñu gisantee ci salle bi ku nekk ni jàkk sa morom sa bët xool sa moroom rek mu am lu daw seen diggante. <laughs> benn flamme. <laughs> pourtant pourtant nag journaliste bi ci li muy nettali xam naa peut-être euh, xam nga gaa non non voilà exactement nee Robert ma euh, Bob Marley li mu ko njëkk a wax mooy tu es vilaine. Hmm. da ngaa ñaaw di ko tooñ tokkaas voilà da ko doon tooñ. il faut nga xam noo <laughs> jeex. Ah, donc tu vois affaire bi foofu la départ naata après bon ñu échanger même euh, si la ko Pascaline wax mais pourquoi doo ñëw. Hmm. Afrique nga joué foofu suma anniversaire u papa effectivement. ba et de fil en aiguille. euh, dans les années 80 Bob était pour la première fois en Afrique mais les Gabonais dafa mel ni xamuñu ko woon sax bu baax. Mhm. parce qu'il se permettait dem à la plage doxantu y avait pas de foule même pendant le concert euh, alchimie bi waroon am entre Bob et le public euh, amul woon quoi. mais bon de toute façon c'est c'est très très très belle histoire. a pour que Pascaline wax ci parce que Pascaline c' est quelqu'une de naturellement discrète de réservée mhm. donc du du ko nga xam ne day exposer vie sur la place publique mhm. euh, et même pour avoir benn entretien ak moom il a fallu l'harceler et à la mort de Bob elle a fini par avouer que c'était son plus grand amour et mhm. li tax mu gën a xam ne dafa bëgg bopp ba gëmeewu ko mooy bi mu yëgee ni bopp dafa am un cancer généralisé donc peace mm-hmm. and love mm-hmm. bob africana zimbabwe <laughs> zimbabwe foofu la ko njëkk a waxee benn précision il euh, Bongo amoon 54 des 54 enfants euh insister sur ça des 54 enfants Pascaline la si gënoon bëgg ak Ali Pascaline ak Ali Bongo la si gënoon bëgg Bob Marley mi ngay wax nii ah bi muy bi muy bi muy bi muy génn àdduna bàyyi na fi fukki doom. mais du ñëpp la reconnaître. fukki doom ak ñaar la reconnaître. Uh-huh. ak juróom ñaari jigéen ñu bokkul. Uh-huh. ba tamit mu ngi noonu. ma ne ko ma ne ko vraiment entre entre laa koy waxee sax <laughs> Chérif Dia moom ku ko dégg xam ne doxaankat bu mag la moom. <laughs> astafurlah <laughs> ah dégg ko dégg ko li ngay wax dafa a. Ah, mais mais dégg ko mu naan nga buntu ah. non c'est normal. mais tey boo bëggee boo. moom boo demee tey madame va te ton ah. compte. Ah? alaaji Maalik du ma ko wax alaaji Maalik xam nga sama mag la. mais soxna Naata yow boo ñu nettali woon sa waa ji monsieur nu mu def nu mu def ba ñu njëkk a xamante <laughs> digression digression ngeen di def Marcel Marcel alors Marcel un mot sur cette histoire qui a longtemps été cachée <laughs> quand même Bob Marley et Pascal Mbongo. mais ma soeur tu es belle ah. <laughs> après voilà. ku nekk xam nga fu ngay jaar rek. de l'accusation. Euh, précisément ñoom ci euh, ba Bob Marley def benn benn tournée concert euh, ci Los université. Mhm. université université bu Los Angeles donc euh, Pascaline Bongo nekkoon étudiante. Hmm. Euh, jamono jooju foofu foofu la ñu daje et comme elle avait l'aura du de, la fille du président du Gabon donc. mu am pas n'importe lequel. pas n'importe lequel c'est la princesse. donc euh, voilà donc facilité pour yegg si ci police yi et puis voilà la fameuse phrase tu es tu es vilaine bon journaliste bi Sophia. mu ko mu ko doon wax sànq c'est surtout un rapport buntu la woon peut-être pour ceux qui draguent. mais kii euh, euh, la woon nu mu tuddati c'est pour un rasta pour un rasta faray c'est c'est difficile enfin c'est c'est inimaginable parce que karaw dafa sacré ci rasta Euh, donc euh, xam xamuñu woon lan mooy euh, njeexitalu jigéen muy liisal karawam donc mm. c'était surtout à cause de ça looloo taxoon mu attirer attention donc mu doonoon benn buntu pour pour Bob Marley mm. mu réaliser benn rêve boo xamante ne rastaman yu bëri lool la ñu loolu la ñu bëgg a réaliser muy delsi ci continent africain parce mm. qu'ils ont forcément un attachement avec ça ce sont les descendants d'afro d'afro d'afro ce sont des afro-descendants les les Rastafari donc mu di quand même benn diine mm-hmm. boo xamante ñoom ci ki ñuy sukkandiku c'est euh, Haïlé Sélassié qui fut empereur d'Éthiopie voilà donc euh, moo tax c'est une comme une terre promise pour eux les Rastaman le, continent africain mm. euh, donc c'est pour attirer l'attention de cette de cette religion mm. Rastafari que beaucoup ne connaissent pas et qui sont très fiers d'être des Africains avant tout. Marcel Farba Maroun merci également même, à Pascaline uh-huh. était allée en Jamaïque ba pare topp bopp Bob Marley ci benn mm. tournée bu nga xam ne mi ngi ko doon def ci foofu sax le rapprochement bi gën a amee seen diggante ñoom ñaar. mais quoi l'amour euh, parfois. <laughs> n'a pas de frontière n'a pas de frontière. voilà merci merci El Hadj merci merci beaucoup El Hadj Malick. waaw waaw tuddoon nañu ko ci waaw. Ah, Omar Blondé ak euh, Blaise mm-hmm. ñoom ñëpp tey la seen anniversaire. activisme fii Sénégal. absolument ñoom ñooy précurseurs yi voilà. boobu c'était plus difficile. ndax mm-hmm. amul. woon conditions absolument te ba loolu euh, loolu ba tey itam ñu ngi ciy waxtaanee merci beaucoup Chérif léegi dañuy jàll ci xibaar yi ñu tënk ko Cheikh Tidiane Diaw